ndeysaan hmm, daw na yaram man nag ndeysaan dafa daw yaram xale yi <laughs> mbokk yi maa ngi ànd ak suma ñaari xale ñaari malaaka yi nga xam ne macha allah tabaarkalla ñu baax lañ. Mhm. xale yi am yar lañ xale yi am teggin lañ xale yi dégg jamono lañ man looloo ma neex ci ñoom waaye wax man nag yéen booy yi nekk fële ne la ngeen a sonal suma xale yi de kii du ma nangu loolu de waaye ñu ngi nuyu nag képp ko xam ne rek yaa ngi jàkkaarloo ñoom dañu seetaan bàyyi ko fii ci Sahel Network TV ba Ndiawaly Mbaye la anti ada anti Aïcha Euh, man nag dafa am loo xam ne dafa ma xaw a jaaxal ci réew mi euh, Africell dafa mel ni dafa am xëccante bu ñoo def diggante ñoom ak daar bi gën a mag ci réew mi maanaam mooy université bi parce que daar bi mag bi ñu ngi ñoom université bi ñu ngi wax ne maanaam Africell joxuñ seen students si network bi nga xamante ne moom la ñu mun a euh, fa la xale yi mun a jaaree pour def seen online studies yi ak yooyu noonu so ba tax na ñoom daal. contrat bi nga xam ne xaatim bi nga xam ne nangutoo bi nga xam ne def nañ ko diggante seen diggante ak Africell ñoom UTG yi ne dañ koo cancel dem seeti Qcell mbaa ñu dem seeti Gamcell waaw man nag dafa am lu ma si xaw a jaaxal maanaam dafa am luy ñuul ci soow bi man ci suma gis-gis. te man mii sax si loolu laa bëgg a ñëw léegi. waaw waaw parce que soo ko seetee barki Demba Ndiaye ñu ngi fi doon waxtaan about. Africell 2 million. 12 uh, million 12 12 million. bi nga xamante ne parce que fooguloo comme xeex bi lañ nekk di def. waaw mun man man moo tax man def man pour man. dafa am luy ñuul ci soow bi. te luy ñuul ci show bi nag dañ ko war a seppi. foog ñu seppi ko sax. mën na naan sax luy ñuul ci show bi su ko defee ñu ñu gën a xam ak ñuy seetaan. waaw waaw waaye man ba tey sax man li moo bëgg a wax mooy euh, dëgg la internet bi Gambie dafa seer. Mhm. dinaa ñëw ci bi daf fi trop. dinaa ñëw ci loolu ñi ma ko dee compilé. dinaa ñëw ci loolu. suma maas yi. Ah? Euh, moon bi parce que léegi ñëpp student ñu bari loolu lañ nekk di def. waaw seen kër ñu jàng. Mm-hmm. léegi yow mi baadoola bi amuloo Android phone. Mm-hmm. yow mi baadoola bi yow sa pass buy dem school sa doyul. Mm-hmm. ñu ne la war a jënd nga war a jënd crédit. yow tey soo jëndee 25 nga xaaral loolu rek laa am xam nga def tuuti research yow balaa ngaa dugg balaa ngaa xam ne yow sa crédit. ñu ne la tëj taw. <laughs> <laughs> sama maat yi nga xamante ne internet bi la nekk saa su ne nekk di def. waaw nga def say risaay nga def sa wala dina métti boo xam ne ah Africell ñoom ñu naan ñaan ngeen tamit nag fii mhm. ah. ok ñoom dëgg la su fekkee ne na sax am nañ euh, misunderstanding seen diggante ñoom UTG. waaye damay wax ne Africell nañ bàyyi xel tamit li nga xam ne mu ngi ko def si dëkk bi. Mhm. man advertise loolu ma leen di waaye xam nga olof Ndiaye faral di ku gis nen ne nen a ngi. Mhm. lu muy dëgg tey jii soo jëlee 12 millions ak ni xaalis neexee. Mhm. word of uh, uh, uh, xaalis cash. Mhm. dugal ko ci Afrimoney man pour man su ma gis-gis li ma njëkk a jàngat mbaa mbaa damay laaj de. Mhm. mbaa <laughs> est du looloo tax ñu bugg leen a koñe ci lii. Mm. bugg leen a indil jafe-jafe man damay man su ma xalaat la wax de ngeen baal maa xam benn ñaareel ba internet Gambie anti ada li nga wax diggal dafa seet. gis na yeneen réew yi dafa am looy fay nga am internet pour thirty mois euh, pour mais wan waaw pour thirty days Dubai da ngaa fay da euh, da ngaa fay da ngaa fay like fifty euh, fifty xam ñu defal la connection boo xam ne pour thirty good days every day dinañ la may euh, laisser for now hundred and fifty MB boo xam ne ni nga ko mun a waxee waaye Facebook WhatsApp yooyu yëpp da ngaa mën a seen muy dem. da ngaa mën a seen muy dem. mais internet bi du paan. non non non da ngaa dugg on Facebook. da xam nga xamante ne da sax muy bire. nga ko gaañu ne léegi dañ la mun ngaa mun ngaa def any boo boobu nga def lenn rek la dut mun mooy YouTube. loolu on laisse until nga am Wi-Fi. Wi-Fi. understand kon man dama foog ne internet bi Gambia booy Sénégal mii Sénégal sax di same thing ñu ngi am dat système. Mhm. Sénégal yi nga am système boobu noonu. am na ko ma si doon waxtaan ak déggoo déggoo loolu la ma wax mu ne ma ñoom like euh, free midnight browsing bi. waaw mu ngi Sénégal am na. Gambia lu tax ñun ci internet seer lu tax mu war a seer. waaye soo ko seetee tam crisis bu ñu nekk nii sax soo duggoo si internet bi def research doo mën a am yenn information. doo xam sa li xew sa dëkk waaw doo mën loolu moom den doon na loo xam ne ah su si gars yi mënoon a taxaw bu baax ñu dimbale ñu pour internet bi. Gambia internet bi seer na ñun baadoo la yow li nga jënd a si crédit yenn saa yi nga rek dala dalasi sax ah. xoolal na sa ñaari monsieur Duga ñu ne la jeex na. ñu ne la jeex na ko defee nga dégg <laughs> waaw nga xool leen ñu naan la xoolal sa téléphone bi. Mhm. dafa am apps yoo xam ne ñu ngi doxal fii la xarit jaar nangam nangam loolu sàcc la. sàcc la dama koy wax te dund de loolu sàcc la. Mhm. li ma bëgg rek mooy UTG. Euh, euh, euh, mhm. Africell defal nañ leen yàgg nañ leen defal teraanga. kon jëf ji tey jii. toog leen ngeen resolve ngeen waxtaan seen biir yéen yi neen wala sànga ngeen solve problème parce que ñu ni neen la lépp ci biir dëkk bi la man daal loolu laa bëgg ngeen xam loolu daal loolu laa bëgg ngeen xam te nag Euh, euh, pura xaw ma pura xaw ma nañ pura nañ lu ñoom ñoo war a taxaw si lii. Mhm. ñu gis ne internet bi dafa wàññeeku fii am maanaam internet bi waay waay wàññeeku waay. mbokk yi wàññeeku waaye gis nga Ada yow dalal dalal. non bi dalal. ara ñu dalal ko parce que xam naa ne moom moom. nekk nii yaram bi dafa tàng. man dama am na problème dañuy dañuy dal rek ñu waxtaan ak ñoom xam nga lu nekk ndànk-ndànk la. Mm-hmm. ba pare ñu bàyyi comment yi daw ñoom tamit ñu yokkal ñu ay. kon gars yi ñu TV yóbbalu bés bi lañ fi amoon bye bye.